bu ñu dox si yoon war na mën a takk masque bu ñu toogee milieu war na takk masque. far force la war a doon. d'accord nga ñu takk masque ci mbedd bi. ah ah xanaa ñu respecté ko rek te respecté geste barrière yooyu ndax feebar bi mën fee gaaw a jóge. aussi double masque double masque lu tax. bañ corona bi dugg ma rek. <laughs> bañ corona bi dugg la. daal fi mu toll nii damaa bëgg ñu takk masque yi. affaire yi <laughs> ndax sonn nañ géwél yi. pour l' instant nous n'avons pas retenu que dès qu'on sort de chez soi on porte un masque donc ça veut dire qu'on peut on peut ne pas porter am nañu mbégte ànd ak tey nag vraiment ñu fas yéene def euh, benn doxantu comme ni ngeen ko xamee ci lu jëm ci port. obligatoire masque est-ce que war nañ ko takk euh, ci mbedd mi donc moo tax tey ñu fa yéene ànd ak Euh, dégg ngeen euh, ministre bi lim ci wax Aly Ngouille Ndiaye ci lu jëm ci wàllu masque bi ak mbedd mi donc c'est pour ça tey jii nag ñu fas yéene dem ànd ak ñi nga xam ne euh, ñoo nekkee ci mbedd mi laaj leen seen avis est-ce que masque wax nañ ko takk ci mbedd mi mu doon li nga xam ne moom mooy obligation waaw wala déet. am ngeen ne masque yi am na ay bërëb yoo xam ne ci lañ koo gën a taamoo fi nga xam ne fi la nit ñi di gën a daje waaye nag bu dee ci mbedd mi itam est-ce que da ngeen bëgg ñu def ñu takk. par la force nuñ ko mën a waxee masque ci mbedd mi waaw wala déet da ngeen ànd ak Modou Diouf ngir ànd ak askan wi euh, ci euh, wàllu mask yi. ñu dem ci euh, ça va na ngeen def. sant yàlla rek. ci jàmm bu baax a baax. naka la. 100 pour cent bool bool. 100 pour <laughs> <laughs> kon bawol bawol dëgg nga quoi. bawol bawol pire bu rafet. waaw ah, d' grand euh, gisuma la nga takk masque est ce que ànd nga ñu takk masque ci mbedd mi waaw wala déet. non si ñu takk masque kay mooy yoon man sama bassin sama poos bu ñu dox si yoon war na mën a takk masque bu ñu toogee milieu war na takk masque ndax dañ koo santaane dañ ko war a def c' est normal. waaw daal for bëgg nga ñu mu nekk obligation par force Sénégal ku ko tax. non par force la war a doon gis nga ñun suñu dëkk bi commandant bi nañ koy sant di ko gërëm dafa da koo dox léegi Mbacke tu ñoo ñëppay takk amul ku takkut te da leen jox cër bi ñu jox ko cër bu ñëw da lay defar ba nga def na la takkal nga takk waaw. voilà il paraît que Mbacke ñoo gën a respecté port de masque non xam nga lu tax ñu fonk ko ndax dañoo cër jox état bi bi moom état boo ko boo ko bëggee da nga ko jox cër bi moom. te commandant bi da nga ko jox cër bi moom moo tax ñu ñu delloo ko njukkal jox ko cër bi moom moo tax bu ñëwee na takkale ñu takk ko bu gouvernement bi waxee ñu ñëpp dañ see war a ànd jàppale ko pour ñu avancer waaye nag bu ñu jàppee kii na lii amul kii lii amul. du dem affaire bi bu ne am na nañ jàpp ne am na loolu rek mooy mooy mooy raisonnable bi man de 100 pour cent bool bool sama masque nga sama poche damay takk. mais masque warul nekk ci poche. boo génnee dama koy takk léegi looloo looloo neex. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw noo tudd. man maa ngi tudd fallu Fallou est-ce que ànd nga ñu takk masque ci mbedd mi mu doon obligation waaw wala de waaw euh, ànd naa si parce que comme li ñu wax ne virus bi moom day circuler te ni muy circuler. takk masque mën na la cee aar jàpp naa ne euh, mooy nekk li nga xam ne pour ñu euh, takk ko mooy li nga xam ne mooy gën ci ñun pour ñu mën a aaru ci li nga xam ne mooy jàngoro bi di Covid 19. Eh, mais mais bu dee ci mbedd mi nii. Eh, tey dañoo nekk nii ñun takkuñu masque peut-être ñeneen dinañu gis di tricher xam nga loolu itam nañ ko ci sóoraale parce que comme par exemple am na ñu romb nii. tey bu ñu gisee ne ñii kat takkuñu masque ne mën nañu ne ah ñii kat kon mooy loolu mën nañoo bañ a takk masque. salaamaaleykum mais grand looy mais grand looy daw café laa bëgg sax café laa bëgg café. ça va ñu ngi jaajëf comment tu vas noo tudd. Moustapha Sala tudd. Moustapha Sène ah. Mhm. Moustapha est-ce que d'accord nga ñuy takk masque ci mbedd mi waa waaw d'accord naa ñu takk masque moom. par la force non pas par la force. parce que dañoo am na fi. ñun nag man moom mosuma gis ko feebar. rek Mbacke moom respecté nañ port de masque. waaw respecté nañ ko. respecté bi nag moom ñëpp mënuñoo bokk yem. am na si ñoo xam ne ne danañ ko respecté parce que danañ xam ne ne carrément feebar am na. am na si ñoo xam ne ne du carrément maanaam ñàkk respect sax mais ñun ndigal la ñuy doxee daal ndigal la ñuy doxee am na ñoo xam dañuy jàpp ne ñun dañoo yëpp policiers yi wala dañoo yëpp état bi fekk demewul noonu ñun dañoo dem ba benn instant ñun maan li nga xam ne moom la ñuy wax feebar bi dañ see amul lu ñu leer parce que même bu fekkee ne nekk nga ni mu feebar war nañu mën a ne kii dafa feebar ñu jël ko maanaam yóbbu ko faj ko boobaa da nga xam ne kii dafa feebar sàngam millier sàngam doo xam ku feebar tey ji gis nga comme kaas café ji sànq gis ko bokkoo teewut kon ndigal la ñuy doxee kon waaw liñ li ñu ëppal solo ba ëppal ñu solo daal mooy ñun lépp loo xam ne ne suñ kilifa sant nañu ko dañu koy def mm. état bi tam lépp loo xam ne santaane na dañu koy def mais bu ñu état teg lu mënut waaw mm-hmm. na nga def maa ngi sa nan nga tudd man Anta Anta <laughs> hmm? est-ce que d'accord nga ñu takk masque ci mbedd bi waaw d'accord naa koy hmm. Mbacke est-ce que nañ euh, geste barrière yi takk masque bu ah, am nañu ko respecté wul de hmm. respecté ko rek te respecté geste barrière yeeg yooyu ndax asalaamaaleykum warahmatullah noo tudd. Assane Thiam laa tudd. Assane yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. naka naka Mbacke moo ngi neex. Mbacke mi ngi neex neex yam. waaw Assane sa masque gisuma la nga takk masque. non sama masque mi ngi nii sama poos. mais masque du nekk ci poos Assane. léegi laa ko dindi nii. léegi léegi laa ko dama doon wax ak kii moo tax ma dindi ko. d' accord léegi est ce que d' nga euh, pour ñu def euh, takk masque ci mbedd mi waaw masque yi moom baax na for la force dañ ko war a takk ndax moo nekk suñ kaaraange ndax feebar bi dafa bëri ca mi ngi ci dëkk yëpp aussi ñëw Sénégal di ko lëmbee rawetina gox bi ñu nekk muy diggante Touba ak Mbacké lu ne ñu ngi koy dégg respecté wu leen masque moo waral dañ ko war di takk respecté ko te ñu ngi ciy góorgóorlu aussi ñun waaw may dellu di santaat euh, polisu Mbacké surtout commandant bi saa yu xëyee dina ci dox diñu contrôler ni di pour ñuy takk maski yi ku ko takkul ñu teg la si yoon wax dëgg yàlla mi ngi si góorgóorlu moo tax gars yi gën ko respecté liggéeyam rafet na depuis boobu ba léegi ñoom it couvre-feu bi bi mu amee respecté nañ ko diggante Touba ak Mbacké dañoo jàppale woon couvre-feu bi ñooy gën a jalgati parce que parce que moo loolu mooy suñu kaarange surtout na événement bi di ñëw di màggal Touba dañ ko war a gën a respecté comme bàyyi nañ yoon bi ñëpp di dem ak a ñëw mais na respecté masque yi ak gel yi loolu daal kon daal ñu respecté masque yi ngir daan jàngoro ji ah? waaw ñu respecté masque yi ngir daan jàngoro bi di laal saabu yi bu baax ak gel yi mooy suñu kaarange nga tudd Fatou yaa ngi ci jàmm Fatou yow danga nga masqué wu en temps aussi double masque double bañ corona bi dugg ma rek. <laughs> bañ corona bi dugg la. waaw est-ce que nga ñu takk masque ci mbedd mi ah waaw nagam corona bi moom nee nañ day duggee kenn nañ takk rek. <laughs> kon dañu war a takk masque ci mbedd meeg ci fépp ma ah? ah waaw. Hmm. man suñu kër ga ne takk masque ça va. waaw sant bu baax. yaa ci jàmm maa ngi wér. yaa ngi bu yem nag. d' accord euh, est que d' nga ñu takk masque ci mbedd mi. Euh, mu nekk obligation. parce que am na ci ne xëy na seen feebar seen yaram may leen tout temps fu ñu toll takk masque. am na ñoo ne en même temps bu takkee masque duñ duñ nooyee ni ñu war nooyee comme sama genre gi ñëpp takk masque parce que Sénégal ñu ñëpp ko bokk buñ sañoon ñëpp dañuy am ñu ñëpp ànd wér parce que ku wérul mu maanaam mënoo def dara ba mu sotti di takk masque di takk masque tout le temps waaw bu ñuy nelaw sax nañ mën nañ takk masque ndax ñun ñun dañoo sonn fi mu doon nii dañoo sonn saa yi ñoo ngi bëgg a dee. voilà amis internautes de de 24 actu c'était tout pour aujourd'hui euh, tey ñu ci Mbacké ci lu jëm ci wàllum port de masque bi voilà est-ce que ñu ngi koy respecté filé masque fu ñu toll donc euh, ak ma ne xew Covid 19 est la reste vigilant ah et prudent moytu leen bu baax euh, Covid bi moo ngi fi. bi di leen jox daje incha allah beneen jotaay ànd ak 24 actu ak Modou Diouf ah borom téléphone bi. <laughs>